naka ngay gëmee yàlla yàlla des koy gëm ci ñeenti mbir bi si jiitu mooy kennal ko ci rububiya loolu mooy gëm ni yàlla moom lañ ko war kennal ci mbind ak wërsëgal ak ni àdduna bi moo koy doxal moom dong kennal ko ci ay jëfam lii ay jëfam la ñaare bi mooy kennal ko ci uluhiya mooy kennal ko nag ci si jaamu si suñu ay jëfi ñetteel bi mooy kennal ko ci ay turam aki melokaanam loolu mooy kennal yàlla ci nu mu tuddee ak nu mu melalee boppam ci téeréem wala ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci saxal lépp la nga xamante ne saxalal ko ne na ko boppam daqal ko tamit lépp lu mu dàqal boppam ci dudul nag ngay soppi tur boobu wala melokaan boobu wala di ko daq wala di laajte naka la wala bokk di ko misaale ci saxal tamit ni yàlla moom ku am la yàlla tamit ku am la ngir am na ñuy weddi amub yàlla saxalal yàlla ni moom ku am la loolu dafay amee ci ñeenti mbir li ci jiitu mooy al mooy xel ngir xel nanguwut euh, adduna bi ñu nekk ci suuf ak asamaan ak géej ak dex ak garab ak guddeeg bëccëg mbir yooyu amul ku ko sàkk déedéet looloo tax yàlla wax ni am xuliqu min gayri cheyin am humul xaaliquun ndax nit ñoom di dañoo jékki-jékki rek nekk kenn bind leen wala bokk ñoom ñoo bind seen bopp ñaari mooy alxis mooy yëkk doomu aadama dafay nekk ci tiis ak njàkkare mu daal di yëkkati ay loxoom asamaan mu daal di ñaan yàlla azza wa jal yàlla daal di koy yàlla daal di faj aajoom yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan na bésu aljuma ngir yàlla taw amul woon benn niir ci asamaan yàlla nangu ñaanam asamaan taw ba bi muy génn jàkk ji sikkim baa ngi tooy bay sotti ndox Euh, naka nag lu ñuy gëmee nag lii di euh, malaaka yi gëm malaaka yi mooy gëm ni ñoom àdduna bu nëbb lañu kenn mënu leen gis kenn mënu leen gis ni ñoom yàlla leer da bind ak leer du ñuy topp yàlla duñ ko moy ñun du ñu am bakken am yaram am xel am xol bokk na ci li yàlla wax ngir firndeel loolu le qul nazzalahu ruuxul qudus ni yi du ñu am ruux ni tamit jaailul malaikata rusulan jaaili lmalaaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulaasa wa ruba ni malaaka yi kat ñoom du ñoo am ay laaf ñaar ñett ba ñeent ñaar ñett ba ñeent waaye tamit du ñoom tamit xol xatta ida fuzzi'a bi qulubihim yàlla mu ne bu ñu demee ba tiitaanga yi génne seen biir xol yi du ñuy gëm ni malaaka yi li ñu xam seen tur ku mel ni jibril mikail israfil malakul mawt waaye nag du ñu saxalal nii am na malaaka bu tudd Israil déedéet ngir loolu dëkkul ci ay turam du ñuy gëm tamit seen i melokaan ak tamit jëf yi nga xamante ne moom lañu yàlla teg ñu koy def ak bépp xibaar bi nga xamante ne lislaam ñoo ne dañuy xibaare ko mu jëm seeni i mbir du ñuy gëm tamit téere yi gëm téere yi mooy gëm bépp téere bi yàlla wàccee ci asamaan ni téere yooyu le kàddu yàlla la nekkut mindaafoon ni yàlla moo wàccee bépp yonent wàccee na ci moom téere laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna maahumul kitab lu ñuy gëm ni téere yooyu ñi ñu xam seeni tur lu mel ni alquran tawrat injil zabur suxuf ibrahim ak moussa gëm xibaar yi ci nekk ak atte ci nekk waaye dañuy gëm ne alquran ñëw na di folli bépp téere bi nga xamante ne moom jiitu woon na ko kon daganul ci doomu aadama ñu bàyyi lii di alquran jëm ci ay waxu philosophe wala juif yi seeni nettali ñuy nettali ci lislaam déedéet ngir alxuraan yiw aduna ak alaxira mu ngi ci du ñuy gëm yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni du ñuy gëm ni ñoom ay jaamu yàlla ñu kenn du leen jaamu waaye nag ay yonent lañ kenn du leen weddi du ñuy gëm ni yàlla da leen wax waxyu dafa wàcce ci ñoom kàddoom ni ñoom ñëpp joxe nañu kóllëre bi leen yàlla tegoon laay nañu biir xeet bi waaye tamit jaayante nañ ci yàlla dayob jaayante ko njëkk ci ñoom moo yonte yàlla nuux alayhi salaam ki ci mujj moo yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp ku woote woon ak yonent gannaaw yonte yàlla bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam koo loo loolu le kéeféer bu mag la ak ku mu ci doon kooku kenn du ko dëggal du ñuy gëm kat ni yonente alayhimu salaatu wasalaam ñi ñu yàlla xamal ci ñoom seen i tur ak seen i melokaan ak seen xibaar ak kéemtaan yi nga xamante ne yàlla jox na leen ko gëm yowmal qiyaam dafay mooy gëm lépp luy ñëw ci gannaaw faatu gëm ni euh, bakken ruux malaaka bi dina ko jël dana yéega moom ci kaw asamaan dañ ko dinañ ko ubbil wala ñu daal di ko koy tëjal ni bakken boobu dinañ ko delloo ci kaw suuf buñ ko delobee dana dégg tànk ñi ko indi woon foofule ni malaaka dana dikkal di ko laaj ay laaj kan nga doon jaamu sa diine ak sa yonent waaye nag doomu aadama bu jàngul ñetti mbir yi du ko mën a tontu du ñuy gëm tamit ni bàmmeel am na xéwal bu fa nekk wala mugal bu fa nekk dekki am na regle am na fay am na siraat am na aljanna am na safara am na rambu am na waaye tamit jullit ñi tamit dinañ gis seen boroom ci biir aljanna kon gëm yowmal qiyaam mooy gëm lépp luy ñëw gannaaw faat juróom-benneelu ponk bi mooy gëm ndogal ndogal nag pour gëm ko borom xam-xam yi du ñoo wax ni mënta ñàkk ñeenti mbir daal ci daje bi ci jiitu mooy xam-xam mbind coobare xam-xam mbind kitaaba bind coobare ak xalq ak mbind bi si jiitu mooy xam-xam du ñuy gëm ni yàlla azza wajal xam-xamam dafa mat lépp amul dara lu ci génn amul dara lu ko réer ci asamaan ak ci suuf ñaara bi mooy yàlla dafa digal xalima ngir mu daldi bind mbooleem ndogal yay am ba bés penc taxaw li ñu gëm tamit ni coobare am na jaam bi dafa am coobare bu nekk ci moom waaye coobareem dafay topp coobare yàlla la soob yàlla mooy am la ko soobul du am wa ma tashaa'uuna illa an yasha allahu rabbul alamin yàlla mu neñu Euh, du leen soob benn mbir dul da fekk ni loolu le dafa soob yàlla yàlla wax na ba léegi ci alxuraan fatu xarsakum anna chitukum anna chitum na ngeen dikkee seen soxna yi fu leen soobee kon doomu aadama am na coobare ci bi ci mujj mooy mbind doomu aadama yàlla da koo bind bind tamit ay jëfam jëfam dafay daal di topp mbind bi loolu la yàlla wax wallahu xalaqakum wa ma taamaluun yàlla kat moo leen bind bind seeni jëf waaye nag doomu aadama yi jamono ji dañuy sikk sàkkloo nit ñi ci lenn ci wàllu ndogal ba tax na nit ki bu ko lor euh, bu mën na bàyyi la yàlla sant sukkandiku ci ndogal wala def lañ ko tere mu sukkandiku ci ndogal looloo tax nit bu naanee sàngara masala ñu tere ko naan sàngara mu ne ah yàlla moo tax yàlla moo dogal ma naan sàngara kooku naka duñ jëfenteeg moom kooku jàpp ko nga dóor ko boo ko dóoree bu la lan moo tax nga dóor ma wax ko ah yàlla moo dogal ma dóor la bu ko nanguwul foofu bu ko nanguwul foofu duñ ko wax ni ah ni nga ko bañee nanguwee fii tamit noonu tamit nga koy nanguwee noonu tamit nga ko bañee nanguwee ci àqub yàlla bu nanguwee kon baax na loolu tax si jamono Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mosoon nañ jàpp ab waay boo xamante ne moom dafa sàccoon buñ ko indee gëstu ay mbiram ba def lu dul dagg loxoom mu ne ah yow njiitu jurit ñi bu leen dagg sama loxo ngir dama sàcc ci ndogalub yàlla ci ndogalub yàlla laa sàccee Omar mu ne ko waaw dëgg la ci ndogalub yàlla nga sàccee waaye ñu nit dañuy dagg sa loxo ci ndogalub yàlla looloo tax doomu aadama daganul ci moom mu daal di tettatloo lii di ndogal ngir bàyyi lenn li nga xamante ne yàlla da ko ko sant wala boog mu def lenn la nga xamante ne moom yàlla da ko koo tere